su jigéen jeexalee góor a koy yore ci ñaareelam mm-hmm. ci bàyyi xel bu baax mm-hmm. ñiy oote janda equality mm-hmm. ma ne góor bu ñu ko joxee ñaar jox jigéen benn sant ñu jigéen mu yëkkatiwaat alal di dundal góor góor moom la war muy dundal jigéen ngir ñaar yi mu am loolu mooy yemoo moom Seydina Muhammad mu ñëw nag fekk jamono yàqu bi mu ñëwee nag ñëpp yëg nañ ne ñëw na ndax soo xiifee war a lekk nga yàkkamti lekk bu waa ji yenoo añ bi di ko taaj buy agsi nga xam ne indi na añ bi parce que raxasu yoor moo ci des looloo tax Ahmad Shawqi di wax ne wuli dal xudaa fal kainaatu diyaa wa famu zamani tabashumu wa shanaaw àdduna muñ na te bég na te xam na ne it am na gan gu gën ci gan ñi kooku mooy rasulullahi mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi mm-hmm. mooy sangu nit mooy sangu jinne mm-hmm. mooy sangu malaaka yi mm-hmm. yàlla nga ko bindee ci boppam bind ñépp ci muhammad moo tax mu ne ana minallahi wa antum minni moo tax seydi haaji malik ne wa innahu is arada allahu nasatana abbaana min nuurihi nuuran nabil alamin mu ne wa innahu liy dëgg tey dëgg is araada ba mu bëggee moom yàlla nas nasatana amal àdduna bi mooy sos ñu ñun nit ak jinne abbaana dafa tibb min nuurihi ca leeram nga moom yàlla lum ca tibbee lam tibb ba mu ko defaree nuuran nabil alamin loola mooy rasulullahi sallallahu alayhi kon loolu lañ la doon tënkal yaay Aysatu mhm. ci kan mooy Seydina Muhammad ak judduteem lu war a tax ñu di ko màggal mhm. ku am ndam lu toll ni nekk yërmandeew xeet bi mhm. ku am ndam lu toll ni nit yëpp war a dem safara nga gindi leen jëmee aljanna ku am ndam lu toll ni yàlla bindee la ci leeram kon sa juddute war na ci képp ku lay bégee muy bég ca bés ba di la màggal te di la tagg lii lañ doon tënk yaay jërëjëf yaa Ousmane ni nga tàmbalee si yonent bi sallallahu alayhi leer na rafet na comme li ñu wax rek ne géej boo xam ne la yaay wax ba tàyyi rek waaye Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa hmm. kenn mënut a wax ay mbiram bem jeex daal hmm. waaw nag su ñëwee nag si gàmmoo hmm. mooy màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi am na ay uute yu si nekka nag because am na ñoo xam ne wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bim eh, faatoo xalifa yi toogoon ki njëkkee woon moo doon Aboubacar Sadiq radiallahu anhu mhm. den ñaareel bi moo doon Omar bun Xataab mhm. radiallahu anhu mhm. den nga am Ousmane bun Affan radiallahu anhu den nga am Ali bin Abi Talib karamallahu wajhu ñii ñoo toogoon si xilaafa bi te jamano boobu musuña màggal juddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo dañ dee wax ne daal affaire bi daal daal pour ñuy ko màggal waaye tam Muhammadu Busayri mu ngi wax ne fa mablahul ilmi fihi annahu basharun wa annahu xayri kalkillahi kullihi sallallahu sallallahu alayhi wa bi sallallahu alayhi yàlla la woon waaye mooy ki nga xam ne tamit moo gënoon bépp mbindeef ku yàlla binda si kaw suuf mm-hmm. te ñi wax ne tam war nañ koo màggal wax nañ ne màggal judóom di wax ay siiraam ay jaar-jaaraam mooy tax nit ñi xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën ko soppa def ko royuwaay lool laa bëgga nga farafanceel pour daal ne gàmmoo nax war nañoo gàmmoo nax waruña gàmmoo màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaay satu nit fa mu féetee mhm. matut fa seede mhm. waaye su doon dibeet mhm. yoo xam ne dañu tàcc ñi koy weddi ñu indi seen addilaat ñun ñi koy dëggal ñu indi suñuy addilaat konoon dinañ la indil ci xeeti xam-xam yoo xam ne borom xam-xam la yoo xam ne mhm. ci àdduna bi kenn ku ci ne da ci bind sa téere def ci baxsu mhm. bind ci sa xelaat ak fan nga ko wéer ci alxuraan ak fan nga ko wéer ci hadiis yonent bi sallallaahu sa wa sallam waaye ay satu pour wax la ne ki wax ne saaba yi màgg lañ juddu yonent bi sallallaahu alayhi wa man ma ne dafa juum mhm. yonent bi sallallaahu alayhi wa dañu ko éviter moo tax ba léegi sunna la mhm. ci buñ la invité te jullit invite la wala koo xam ne ñamam dagan na la mhm. nga dem wuy ji ko mhm. soo àggee suñ la toggalee lekkal soo wooroon dogal sa woor gi ndéem naa fi la la loolu sunna la ñu évité ko ñu toog lekk ci ñam yi ba pare ñuy waxtaan ñoomu neen mook saaba yi pour wax la ne saaba yi dañu doon màggal yonent bi te dañu ko gëmoon ñu jox la ci benn exemple yonent bi moo njëkk a wax ne ana ba min dunyaakum salaasa ala ila salaasa adduna bëgguma fi lu dul ñett wala ñett laa ci gën a bëgg ñu ne ko ban yaa rasulullahi mu ne ak at tayyibu mooy lis ko ak ban mu ne ak julli ñu ne ak ban mu ne ak wéttalikoo jigéen ñu ne ko lu tax mu ne dafa làq kéemaanal yàlla sekkere la yàlla def ci jigéen julli nag mu ne su ma amee naqar moom may sarax ñu ne ko gëtt nag mu ne gëtt xet la goo xam ne day melal xetuk na ci àdduna moo tax boo ko amee malaakal yërmande yi dañuy duñ dañ mukk di la sàkkul yërmande ci yàlla Seydina Babacar laa lay jox exemple moom kenn pour màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko laajee ne ko yow nag lu la gënal mu ne ñett ñetti yi wax yëpp gàmmu la day màggal juddu yonent ñu ne ko ban mu ne su julusu bayna yadayka wa kasratu salaati bi ismika wa anfaqa maali alayka man yonent bi ñett ma gënal te ñett yëpp yow laa koy delloo yow rasulullah ngir màggal la mooy su ma sañoon ci sa kanam rek laay toog du ma fi jógee damay toog di la xool rek kon kii kay fonk na ki muy xool wa kasratu salaati bi ismika du ma tudd du ma wax taan du ma wax lara lu dul sa tur wi rek lay tudd wa anfaqi maali alayka lu ma am dépassé ko ci kon kii daf daan màggal yonent bi mhm. moom yonent bi sallallahu alayhi wa moo njëkk a màggal juddum moo njëkk a mhm. saaba yi laaj ko ndax dafa saxoo woon di woor bésu altine ñu laaj ko lu tax mu ne damay màggal bés bi ma juddu ndax mhm. altine ci laa judd kon ñuy wax ne yonent bi juddum bi màggal ko biddaa la dama ne dañu réer dañu juum kon yaay sutu fi ñu ko teg mooy yàlla moo njëkk a wax ci alquran inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla daf ñu wax ne moom ak malaaka yi def nañu ko mooy julli nañ ci yonentu bi màggal na mu ne yéen ñi gëm na ngeen julli sallu sallu jooju amar la ci naaw mooy digle la boo xam ne yàlla moo jël sañ-sañam santaane pour ñu defal ko kon ñun ñu ngi julli ci yonent bi ñu ngi màggal julli moo tax woykat ba nag mu tëjee woon ko nag ne ki ñàkk sens mooy ki ko bañ a def mhm. ñu ne ko lu tax mu ne lil aashiqiina mhm. lawaaijun lam yashfi an illa salaatu ala nabi muhammad mooy ne amul benn aajo wala benn feebar boo xam ne mhm. borom dana mën a tànk faju ca la mu fajoo ak lu mu man di do mu ngi koy amee ci salaatu ala nabi kon yaay satu gàmm sunna la yonent bi def na ko deflu na ko saaba yi defal nañ ko ko nañu ci wax lu leer borom xam-xam yi fi ñëw gannaaw yonent bi tamit def nañu ko ki ci mujj def ci jëf ju rëy ñu di ko feeñalee ne moo njëkk a gàmmu njëkkut a gàmmu de def ci njëkk a def jëf ju rëy rey na téeméeri gëlëm téeméeri bëy téeméeri xar téeméeri nag togg woo àdduna ñu dajee ci dëkk ba kooka moo njëkk def loolu ci euh, ci ci nit ñu njëkk ña mhm. def ko àdduna bi yëpp dajee di fàttaliku jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu yokkoo ci ngir ñu defaroo ci loolu moo tax ñu tëral gàmmu muy sunna mhm. moo tax ñu tëral ko muy dagan mhm. te loji gi tamit nangu na ko sëb yónnentu nga fonk ko di ko màggal mhm. ñi ñu jiitu woon ñëpp defal nañ ko seen jërëjëf Ousmane bon gàmmoo nekk na loo xam ne mooy màggal judd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te wareef la pour julliti def ko mouhamadul mm-hmm. busayri mu ngi waxaat ne fa kaana nabina fil halhin wa fil xuluxin mm-hmm. wa lam yu daalahu fil elmin wa fil karamin mooy yonent bi sallallahu wa sallam mooy ki nga xam ne ku taaru la woon moo sutoon ñëpp ku amoon xam-xam la ba pare ku tabe la woon mm-hmm. waaye soo demee si jotaayu gàmmo gi pour wax jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam siiroom ay jaar jaaram uh-huh. dafa gën na tax rek nit ñi gën a bugga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën koo soppa comme li nga wax mm-hmm. ba pare tamit yàlla nga waxaat si suratul baaxara ne faskuruni askurkum waskuruni fàttaleku ma ma fàttaleku la mm-hmm. ba pare tam si suratul raad tam yàlla nga waxaat ne ala bi zikrillahi tatma inul qulub mm-hmm. si tuda yàlla si la xol yi dalee waaye léegi-léeg foog naa ñi dee tax tamit ñu dee wax ne gàmmo bi daal la wala daal duñ see sawar pour dem jëfin bi la parce que dangaa dem si gàmmo bugg a dégg ñu wax la yonent bi salaalu wa pour mm-hmm. dégg fa affaire am danga du dégg léegi-léeg dañoo toog sëriñ si nga xam ne dañ am ay mbooloo ay taalube si te sëriñ si yëpp ngaa gis nii si tool yonent bi salaalu wa salaam sa lañ doon béy mm-hmm. suñ daan gàmmo si yonent bi salaalu wa lañ dee lañ daan wax mm-hmm. waaye dañoo toog foofu noonu di yuxu sëriñ bi wala sëriñ bale pour taalibe yi jóg daal di tampongante di leen jox xaalis wala ñu nekk ay tudda ay turi nit ay kilifa yoo xam ne óor mm. na leen ne ñii mm. borom nomba tam tànka leen mm. am nañ pour ñu laa jox xaalis mel ni dañ tanta daal pour ne nañ màggal yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nga dem ba jógee fa doo dégg dara ñu wax ko si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duñ fa tudda yàlla li muy jataay boo xam ne daal uteekaay lañ ko def foog naa ñeen ñi tam suñ sukkandikoo si loolu nekk na lu baax loo xam ne nit ñi war na nañoo xam ne doo ne da ngaa tanta pour màggal yonent bi sallallahu alayhi wa instead of nga màggal ko da nga koo tuutil because doo ko fa tudda di tudda ay sëriñ seeg ay nit ñi te sëriñ si